jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax nag euh, ñi seetaan solution solution info TV ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen gërëm bu baax di leen wax ni solution mi ngi nii macha allah lépp ngi fi ah loo leen bëgg rek docteur Meng ak <laughs> ñoom ñëkk mi ñu ngi fi di leen taxaw di nuyu Sanjoogu di nuyu topp euh, di nuyu El Hadj Modou son yu bu maa jigéen Aïcha. Euh, Assane Mbesere bu mam si Ibrahima Fall ah ñëpp ñu ngi leen di ziar ñoom Kanjeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax ci 30 minutes chrono comme ni ni tàmm di leen ko defalee saa su ne Omar bun Xattaab gi nekk ci kàddu di ziar sama xarit Cheikh Baara Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yokk ko wér gën a dëgëral taxawaay bi tey nag ñu fa yéenee waxtaanee réew mi dinañ waxtaanee ay poñ bu ci xajee dinañ waxtaanee Papito Kara ak ay kàddoom yi mujj. ak lan moo waral dem gi dinañ waxtaanee ci DG ak Sénat ak mbiri Ousmane Sonko lu waral ñu bloqué ko ne duñ ko jox lii di parenage bu jugee ci loolu Boubacar Camara ak report élection yi ñuy wax ci jamono yi ak Sénégal lan moo ko yóbbu fi mu toll nii ak Macky Sall ci wàllu élection ba ñuy jub élection présidentielle ni ñi naan di am ak du am ni ñi naan est-ce que dina am ci jàmm ak salaam wala dina am ci maandute. kon den ci waxtaan njëkkee ko rek ak mbiri Papito Kara di Pape Ibrahima Guèye nekkoon koo xam ne da doon def euh, li naan euh, satire maanaam di def revue de presse ci ni mu ko bëggee mais wax di wax actualité mais ci jamono boo xam ne lu tax li mu doon def ñu respecté ko ba tax bis ñëw mu jural ko kaso ci nii da nga doon toppandoo li ma naan réew mi toppandoo ak reetaan comédie mun na fi yóbbu nit kaso loolu moom Sénégal rek la xew parce que dafa am métier yoo xam ne dañ ko mës a protéger ci àddina mooy ay comédie ay yooyu parce que danaan kaf la bu làq dëgg maanaam loolu lañ ko tuddee maanaam nit ki kaf mais ci biir kaf gi dëgg dafa nekk ci suuf mais boo nekkee ci réew moo xam ne bëgguñu dëgg wala ñemewuñu dëgg wala kilifa yi fi ne jubuñu képp kuy wax dëgg rek da leen di déranger moo tax ñu koy rendre hommage di ko ñaanal sunu borom jéggal ko te xaare ko àjjana ñun nag duñu ko yedd duñu ko yedd na ko lu waraloon tax nga dem lu war mënoon ngaa xaar li nga xaar lii Papito Kara yàlla dafa dogal balaa mi génn di dem dafa am yu fi xew parce que Sénégal ñun bu mbir xewee ci mbir mi rek lay ñuy yem mais li jur mbir mi loolu la ñu bari di noppiwaale un jeune boo xam ne ci comédie def revue de bu dara xewee mu def compte ci jamono joo xam ne man mi damay def revue de presse mais tey jii li xew ci revue de presse ci Sénégal yi ci bari communication la directeur diw ma ngay jaay ay pot directeur diw ma ngay séddale lii directeur diw ma ngay séddale lii wala Amadou Ba dugg fenn ñu defal ko compte rendu ci presse bi presse bi yëpp xëy di ko dëbbel loola fi am dem ba sax. ñi bi de presque ay journal yoo xam ne du génn loolu am na fii ay journal yoo xam ne moo PDF rek lay génn ci internet bi nga dégg nit di ci télé télé pour defal ay promotion ay nit mais lii information bi dëgg du génn <coughs> wala bu Ousmane Sonko demee Touba def mobilisation du wax ci mobilisation bi bu Ousmane Sonko defee loo xam ne ndam la duñ ci wax mais ay ay bu Sonko rek la ñuy wax ay jeunes nag dem ba comprendre loolu. comprendre ni bari nañ ñuy def revue de presse ñu mel na man dañuy tappale ndax li journaux yi di wax wala dañuy tànn journaux yi wax li leen arrangé ñu koy revue wala ñu leen di wonaal wax leen ci lii bu leen ko wax benn Papito Kara génn di def revue mais li journaux yi di bañ di wax ci Ousmane Sonko moom mu ñëw di ko wax pour man bàkkaar boobu rek la defoon maanaam li dëgg gi ñuy wax ci Ousmane Sonko moom mu génnoon di ko wax. ba mu nit ñu bari di visiter page Facebook am di ko topp ci plateforme yi mu ne loolu nag mu nekk sa liberté bis ñëw ay tappale dugal ko ci kaso bi ci jamono joo xam ne dafa am soxna waroon dem lune de miel ñu ne ko lune de miel ba ca kaso ba nga koy defee ci ay tappale biñ ko fa yóbbee juróom benn weer xëy bàyyi ko bàyyi ko dóor ko contrôle judiciaire ñu bari ñu ngi naan lu tax mu jël géej gi mais même bu bëggoon jël avion du ko jël parce que contrôle judiciaire la ne dañ ko njatt ci réew mi téye ko fi ci jeune boo xam ne tey jii liberté la doon dundee maanaam liberté de ton maanaam lu mu bëgg a wax wax ko lu mu xalaat wax ko ñu dem ba ne ko ca wax jooj daa am foo koy yemale plateforme yi mu doon dundee di ci jafandu mais aussi dafa am loo xam ne ñu bari dañ koy xeeb mooy liberté amul prix liberté boobu ñu xañ ko ko Papito Kara fameem nañ nañu Dakar gi mu nekkoon. bi mu demee ba weer wi weesu ci la ñëw dakaar dafa mel ku doon tàggatoo mel ku doon tàggatoo mais Mbàkke la toog parce que ndaw lu xam ne mësul dugg kaso xamul li xew ñu dugal ko fa noonu yëkkati yu bari teg ci comme kooku mën nañ ko traumatiser traumatiser ci boppam parce que liberté bi muy dundee liberté boobu lañ ko xañ na ko foo yëngoo mën na la waat parce que boo nekkee sous liberté provisoire sous contrôle judiciaire mooy wane yow rëccëgoo waxtu wu ne mën na la jàpp léegi nag loolu. mën na pousser un Papito Kara mu soxla liberté liberté boobu fan la ko soxlaa mooy mu ne damay dem bitim réew mooy réew mi ma ne liggéey bi ma yoroon tëj nañ ma juróom-benn weer tailleur la mën na yàqu yor naa soxna sas yi ak yan wi mi ngay gën a diis léegi est-ce que du dem bitim réew tenter dara parce que boo xoolee ci dernier message bi mu wax maanaam li am ci réew mi jàppe beeg tëj bi. waaye tamit dictature bi fitna gi ba fitnaal giñ fitnaal Ousmane Sonko mais beneen bi ci topp mooy épanouissement ndaw lumière dafa soxla ndaw dafa soxla épanouissement maa foo xam ne dafay nooyee ñun jeune jeune day soxla loolu fi Papito Kara toll ñun tolloon nañ fi jamono est-ce que jamono yooyu ñun ku ñu tegaloon gaal du ñu dem parce que da ngay toll benn jamono. ñu waxante dëgg doon nga waxamaane yor nga soxna li lay xaar bari na la pression sociale dëkk bi xat na ci yow da ngay gën dem léegi nag ci ban anam ngay demee moo tax ñii di jël ni Nicaragua ñi am possibilité am visa dem mais aussi ñi am possibilité jël gaal gi jël ko parce que aventure la rek ndama ngi ci leneen ngi mi ngi ci mais lan moo waral ku mel ne Papito Kara doon ab patriote dem ba réew mi xat ci moom mu war a dem. loolu doo war a poser question lan moo xew mooy espace bi mu doon parce que nit feeg mi ngi wax feeg mi ngi wax li ci xolam des fois mën ngay dund coono di jënd ñun ñii ñëpp tey jii amuñu lu leen gaañ yoruñu leen gaañ mais wax bi ñuy wax dañuy soulager parce que xol ak xottu leket ñoo yam mais buñ feesee dañuy tuuru kon wax boobu booy doon wax muy def revue de presse am peut loolu moo ko doon dimbali mën na am buñ ko ci bàyyi woon. mu koy def mën naa am du xalaatam du nekk ci génn parce que li mu bëgg a wax mi ngi koy wax mais bu demee ba mënatul génn def manifestation mënatul génn wax ñu dégg ko teg ci teg nañ ko benn épée de Damoclès am lu ñu teg ci boppam ba ne ko doo sigg foo sigg rek mën na la jàppaat ba tax Dakar gi mu nekkoon di fi am dara mu dem làq du sa Mbàkke dem toog mais kon mën nañ wax ni loolu bokk na ci lii génnee Papito Kara parce que boo dégloo message am bi démb ñu ngi ciy wax ci victime du net mais da nga comprendre maanaam da nga koy comprendre léegi nag waxu Thione Seck ba dikk mais booy yi bëri di dem mais Serigne Cheikh waxoon na ko fi balaa may ñëw ci Thione Seck réew mu amul justice lu fa ndaw yi di def réew mu amul justice mais tey ji ñaata ndaw ñoo nekk ci kaso bi ci yu ñàkk fayda yoo xam ne tey jii. juge bu ñu toog seen kanam mu bàyyi leen xoolal lu nit dof wax ci kaso bi ak xale yi ni ñuy dankaloo foofu ak feebar ya leen fay dal ak ni leen fay fitnaalee réew moo xam ne fukk ak juróom-ñaar maanaam lu toll ci juróom-ñaar fukk ci ay ndaw nee nañ faatu na ba tey ji enquête du dara ay milliers de seen des ci géej gi kenn waxu ci nguur gi du conseil interministériel du conseil des ministres du dara goo xam ne nguur gi dafa jug officiellement na tey ji nanu toogee waxtaanee immigration clandestine li Seydi Lamine Niass waxoon dikk un étranger parmi les siens ñun danoo mel na ay doxandeem suñu biir réew maanaam ñi fi doon sax ay gan ñooñu fi ëpp sañ-sañ billaahi ñu fi doon ay gan ñu ëpp sañ-sañ tey jii boo demee ci Kër Massar gii wala nga dem fii maa ngi ñëw ci mbiri Papito Kara ci laa ne damay jox ay exemple dafa am benn kilifa APR lan la parrainage parrainage lan la nan ko defal Amadou Ba booy bañ na ko Sonko la ñuy xaar di nga booy nekkoon foofu di jaay yëpp leen dégër piir boo demee tey jii romb Kër Massar romb euh, Auchan bi jëm ci ay don bi mais kenn nekkatu fa ci information yu ma jox. parce que danoo àndul politiquement ak nguur gi ñu ne leen fa jëlee ci kàddu yu ma yëpp est-ce que c'est vrai ou pas c'est à vérifier mais bu dee loolu la c'est grave te gëm naa ne munu mënuñu wàcce seen niveau ba ci foofu léegi nag ci mbiri papito Moodu Thione Seck Thione Seck laay dikk daf na juddoo ci réew màggee ci réew amoo fa yoon amoo fa baat yamuñu ci loolu di la buntu xatal mu ne bu yàggee di nga jéngu di nga jéngu yamale dund ak dee est-ce que dégg nga way col ko ci apartheid apartheid ak ni mu meloon Afrique du Sud tey nga dem ba sa xel di egg ci ni ñun est-ce que nekkuñu ci apartheid moo tax booy di daw booy di gàddaay parce que bari na fooy dem ci tugal jamono yi booy yi ci bari ay bracelet Pastef la ñu takk boo xee ñu ne suñu réew dañu faa bundu xatal c'est simple. boo waxee ñun la suñu réew ñun dañu faa bundu xatal ñi ëpp ci ñun ñi ngi ci kaso bi képp ku ci nekkul ci kaso bi sa bakkan mi ngi ci xorti gerte juróom fa ñaar fukk ci ñun faat na leen amul enquête amul dara sunu leader bi ñu yaakaaroon mu ngi ci kaso bi ka toppoon ci moom mi ngi ci kaso bi maanaam directoire bu Pastef ñëpp ngi ci kaso bi te pareeguñ ci tëj mais loolu jar na daw. maanaam di nga jéngu di nga jéngu bu jéngu bi mayewul dara mais nga yemale dund ak dee mooy damay jël yoonu Barça wala Barsaq bu ma eggee continuer di def samay live comme foofu dëkku liberté la bu ma eggee mën a liggéey di taxawu sama njaboot bu ma eggee di mën a wax li may wax te kenn du ma jàpp mais looloo indi Ngagne Demba Touré dem Ibrahima Fall Kona bu doon lim du jeex moo Modou Gueye Diagne géejawaay am na bari na ñu dem di nga ñëw xam ni mais bari na ay ñoo xam ne danoo gàddaay dem kenn xamatuñ fu nu dem te Pastef lañ bokk te buñ toogoon ci réew mi ñu jàpp loolu moo waral daw bi peut bu amoon possibilité jël avion papito da koy def bu amoon possibilité jël yoonu suuf bi da koy def mais comme dafa nekk sous contrôle judiciaire mënul yooyu. comme géej gi mooy yoon woo xam ne moom nguur gi pour man jeunes yi dem bi ñuy dem mën na am dafa arrangé nguur gi parce que fii bu nee police maritime bu Sénégal li génn chaque jour ci géej gi tey boo demee ci dëkk tefes yi ndar sama mbokk yi nga dem Tëngéej nga dem yara nga dem euh, fii nu mu tudd Kayaar boo doon wërte ba mu jeex ba ci caaru géej gi ndaw desatu fa góor desetu fa loolu de bu ne góor ñi ëpp jigéen ñi ci xayma bu mujj bi ñu bari di ko lam-laame mais góor ñi moom ñu bari dem na rawatina ci dëkk tefes yi parce que jaay nañu géej gi. lan daan dundee ci seen dëkk amatuñ ko mënatul lekk mënatul naan gaal yan daan nappee ñu jël ko jël yoonu géej gi dem seen yoon nguur gi jéemu ci dara mu mel ne dem bi booy di dem da leen a neex loolu nag ku mel ne Papito Kara Kara dafa xajatul ci réew mi moo tax mu dem bu ñu sañoon nag day egg loolu nag taxul ni dañuy encouragé ni na ñëpp dem parce que fun na la ñetti nit ñoo dee mooy ñetti nit yu ñu gis mais ñi des ci géej gi te gisuñu leen nag te ñi dem egg nag te egg bi ah, parce que tukki du ñëpp ci am ndam ndaxte du fële la lépp baaxee mais du fii la lépp bone aussi kon loolu mu laaj taxawaay mais ndaw yi da leen a seetaan yamatuñu ci seetaan leen mais da leen di jël di tëj ci kaso bi yamatuñu di leen tëj ci kaso bi mais da leen fitnaal xajatun fi xajatun fi loolu nag li ko indi mooy régime bu échec échec loolu moo may indi ci message Ousmane Sonko bi immigration bi njëkkee tàmbali balaa may ñëw ci DGE Ousmane Sonko daa am lu mu waxoon ndaw yi mun leen toog leen dina baax toog leen parce que mbir mi solution bi du dem solution mooy toog xeex xeex bi ñu gañe ko defar réew mi Ousmane Sonko mos na ko wax ci benn message. xaw ma boobu hôpital la ko fekk xaw ma ci prison bi xaw ma ci barricade je ne sais plus mais mën na yëkkati message bu toll noonu te loolu c'est un message très fort war nañ di ko génnewaat parce que bari na ci ndaw yi dem ñàkk yaakaar jàpp ni Ousmane Sonko mi ci kaso bi mën na ñàkk doon candidat moo tax tey jii yaakaar bi ñu amoon ci réew mi comme tey jii mi ngi ci kaso bi xat-xat ñoom danoo war a dem mais Ousmane nee na toog leen li Cheikh Bara Ndiaye waxoon nguur gi juróomi weer moo nekk seen bopp mais moom cinquante ans ci kanam lay xool te cinquante ans yooyu dafa soxla la jeunesse sénégalaise dafa soxla ndaw ñi bu nee askanu Sénégal li ëpp ci ndaw ñi mooy de dix-neuf ans la ñu am ñu ne treize millions de sénégalais moins de trente-cinq te ñooñ ñi ci ëpp Ousmane Sonko lañ àndal kon ñoom seen yaakaar warul tas ñooñ seen yaakaar wul tas loolu tax la Ousmane waxoon mooy xeex bi fii la fii la ñuy toog ñafe ko toog pour plusieurs raisons toog kon munoo yedd ñiy dem parce que ça va pas munoo leen yedd parce que <laughs> mais ku ku weddi yuuxu la nga yuuxu yaa ko xam ndaw yi li ñuy daj ñoo ko xam tey jii ku mu ne ci ñun koñ ba ngay jubee ak kër ga ngay jugee mais da ngay xëy liggéey mi ñaata ngay bàyyi ñu toog ñu yor seen diplôme yor seen lépp mais dina baax dina baax nañ ko ñafe toog jàpp ni yàggatul xéwal yaa ngi ñëw xéwal yaa ngi ñëw xeex bi ñu doon xeex Ousmane Sonko lañ ko doon xeexal mais tey ji bu ñu demee bàyyi Ousmane Sonko kase xeex bi baaxul est-ce que nekkul ni looloo tax ñu leen yombalal dem bi ñuy dem. kon réew mi dafa soxla ay ndawam yorin yu bon yi ñu ko yor ci fukki at ak ñaar bu mu leen découragé Ousmane Sonko est toujours candidat ñaari at ñuy jëm ci moom mais ba tey ji candidat la xoola coowal DGE ak li jëm ci Sénat ginnaaw dogal boo xam ne dañ ne génne nañ ko ci liste électorale yi avocat Ousmane Sonko yi dem Cour suprême foofu laay ñëwee nag ci DGE bi ñu demee cour suprême chambre administrative ñu ni leen déedéet ñu dem ca tribunal bu Ziguinchor tribunal bu Ziguinchor ne DGE joxal Ousmane Sonko ay fiches am e bañ bi mu bañee ñu ne leen dem Sénat àtte leen Sénat ne ko joxal Ousmane Sonko ay fiches te tribunal bu Ziguinchor du saba si fay du rek ñu bari dañuy juum ci loolu waxul woon ni nan ko jox ay fiche am kase dafa ne nan delloowaat turu Ousmane ko ci liste électorale yi hmm. nan ko delloo maanaam saba si ñaar la wax mooy nan ko delloo ci liste électorale yi léegi buñ ko ci delloowee automatiquement dañ ko war a jox fiche de parrainage bu buñ ko joxee fiche de parrainage am uti parrain ni ñëpp mais waxul ni candidat la waxu ko. dem wax naa fi ay marchand ambulant yu yar parrain c'est c'est vrai dem di wuti parrain mais lu wax ni am nañ caution lu leen wax ni mën na nekk candidat parce que gi juge élection mooy kan mooy le conseil constitutionnel eggagun fa léegi ñu ne recours bi doonu lu suspensif recours bu nguurug Sénégal def mais depuis quand ci wàllu bind naa binduwuma maanaam ci Sénégal yi fii xew dafa garaaw de. maanaam Ousmane Sonko bindu na di dinañ ko ci depuis quand état di ci yónni ay agents judiciaires de l' dégg naa Ndiaga laa mu ne loolu Sénégal rek la mu sàmm ndax yooyu mbiru vote warul doon li ñuy gàllankoor nit ba état di ci conseil wu di yónni agent judiciaire de l' dem ba Thiendella Fall ak DGE taxaw di di politique ci loolu ñoom loolu du seen cër ñoom xam lu mu waroon def joxe mbir mi maanu ci léegi Sénat na leen jox la léegi nag. ci wàllu yoon nee na mun na leen a wër nomba mun na leen a wër nomba def li bëgg a def parce que Sénat sañ na nag joxe wañ loxoy DG ne ko defal lii mais DG dafa am ndey am baay ministre de l'intérieur bi day politique ministre de l'intérieur bi di siriki Kaba moo fi waxoon ci jamono bi na daanee Karim Wade mu ni ko daan na la waaye mën nga nekk électeur fa lan mu jëkk Karim Wade dina ko ci liste ne ko doo électeur te pourtant maître Sidiki Kaba bi moo ko waxoon tey ji mooy ministre de l'intérieur mhm. moom mi xam ne défenseur u droit de la woon mujj doon défenseur u Macky Sénégal moo neex maanaam moom défenseur u droit de l'homme ko njëkk a léegi défenseur u Macky maanaam mën a descendre aussi bas loolu la Sénégal fii bu la fi dara bett kon Ousmane Sonko ñu jox ko ay fiches mu dem uti parrain mais nag ñàkk jox fiches yooyu ak DG fi mu taxaw naan la recours est suspensif ci loo xam ne du joxe benn article du joxe benn article dañuy bind lettre bi rek sànni mais depuis quand ah ñun de waa DG ñooñu ëpp xam-xam man de awma xam-xam damay déglu boroom xam-xam yi. Sénat génne ab kayit na Ousmane Sonko nañ ko jox ay parrainage am loolu la Sénat wax bu Doudou Ndir DG bind kayit publier ko mais administration daawul doxe noonu DG kenn waxu ko boo tontu Sénat da ko war a publier dafa waroon bind administrativement maanaam kayit bi buñ deful ndànk ñun ak Sénat ñun ñoo ci yamandoo alors que pour respect respe dafa waroon jël. kayit bi jox ko physiquement Sénat kon léegi waa DGE dañuy fecc jalgati quoi jalgati jalgati quoi maanaam di dem ba de léegi defatoo yoon defatoo droit léegi man lu ma neex laay def maa tey léegi foo ko teg DGE mu ne non maa tey man loolu laa jàppee mooy DGE mooy maa tey te wolof yi dañ ne de may maa tey foo ko dégg ku amul argument la ma la mag mu rus sangoo gàcce gi. loolu nag waru leen ci woon fekk mais bañ Ousmane Sonko di nga blocage yu parrainage yu Pastef yi man dama ci def benn jàngat dama ko mus a wax sama benn waay ma ni ko boobu lii yëpp xewul de boobu usmaan Sonko mi ngi def nemmeeku tuur Ousmane Sonko ngeen baal ma nemmeeku tuur la doon def di nga nemmeeku tuur bi Ousmane Sonko doon def ñu bloqué ko sama benn waay na ma waa nguur gi dañuy jaay doole ma ni ko ñoom ñoo la gën a xam ni Ousmane Sonko ak mbooloo mi mu yor bu wëree réew mi ba daj réew mi bu demee élection balaa midi di jot mu gañe leen hmm. moo tax bëgguñu woon Ousmane Sonko dajale fenn mbooloo ci réew mi léegi ñu dem ba ci mitum Kër Masaar bi boobu nag mooy dañ sàjj gi foofu nag la leen Ousmane Sonko tiitalee parce que jour boobu bu leen fàtte ni bi njëkkee jàpp meeting bi samedi bi waa APR yi di waa Bennoo ya nekk Kër Masaar danoo bind ñoom tamit pour ne dañuy manifeste samedi bi nakate waa Pastef yi dañ leen a bi waa APR jàppee samedi bi waa Pastef fi jàpp dimanche bi ci terrain Yékini bi ñu jàppee dimanche bi préfet bi mënu ko annuler parce que ñi jàpp na sam ñi jàpp na de alors que ñoo waa APR yi seen manifestation ba léegi amul lu ñu ci jublu woon mooy ñu ne ñaari manifestation mënta am ci béréb bii di Kër Masar risque de trouble à l'ordre public ji nga bi ndajeb Kër Masar bi jeexee jour boobu dafa amoon grève transport lu tax ñu autoriser ko mooy grève transport ñu am ñu foog ne nit ñi du ñëw waaye nit ñi lu ne dugg nañ ci ñi war nañu giléem ñu war nañu mbaam ñi war nañu fas ñi ñi sax dox nañ seen tànk pour dem bi meeting bi jeexee ma ni sa waa ji li napp na ragal de mun na la man ko nguur gi du autoriser ti lu Pastef du organiser ci réew mi boobaak tey la lan la fi Pastef jàpp depuis meeting Kër Massar bi nguur gi ànd ci parce que mbooloo mi nekkoon Kër Massar mbooloo moom premier tour lay gagné élection match du am maanaam de 15 heures à 22 heures nit ñi taxaw di déglu benn nit di ko xaar xat damul loolu signal fort la woon. ak discours ba fa Ousmane Sonko defoon ci gatsa gatsa ci yu bari yu mu waxoon mu doon discours boo xam ne dama bëgg nit ñi di ko dégluwaat parce que ku bëgg a dégg Ousmane Sonko dégg dëgg del déglu mitingu Kër Massar ba lépp ci la ko wax ba li xew tey ji ak kaso bii mu dugg ci la demoon ba tey la boppam bind testament bi mu jógee ci loolu ñu ne waa ji ni mu tojee Kër Massar bu ko tojee waatee feneen du xajati fenn ginnaaw gi leen ko tere bu Mbàkke na ko nag réew mi doo fu mën dellooti loolu tam nemmeeku tuur bu mu mës a def dañ koy kar nemmeeku tuur bu mu mës a def dañ koy kar ginnaaw élection locale ak législative yu mu wër réew mi jigi léegi nag parrainage bi boo gisee ñu bloqué ko ne duñ ko jox ay fiche mais imaginel ñu jox fiche yi Pastef waa Pastef wër réew mi wër réew mi mbooloo moomu ci kanamu communauté internationale ci kanamu waa bitim réew mais mbooloo moomu la ñuy bañ dajaloo bi waa Pastef di daj surtout surtout que ba nu tasee parti bi tëj Ousmane Sonko danoo foogoon ni ñu bari seen yaakaar day tas mais mbooloo moomu bu leen jox ay parrainage mooy dajalewaat Pastef nguur gi li muy def xam na ko de nguur gi est xam nguur gi dafa ñu maanaam jox Pastef wala jox Ousmane Sonko ay parrainage mooy dajalewaat Pastef mooy animé waat parti bi mais aussi mooy sensibiliser les militants mais aussi mooy dajalewaat parti bi kon bu leen joxee ay fiche mooy day mel ne tas bi ñu ko tasoon amul njariñ day mel ne tëj bi ñu ko tëj amul njariñ mais aussi day tax ñu alerte sur le plan international li naan la victoire avant l'heure mu loolu rek moo waral ñu bloqué ko di xaar conseil constitutionnel ñu bari nag ñi ngi njort ni bu ñu eggee conseil conseil Ousmane mën na jàll mën na lii nguur gi seen logique mooy Ousmane du bokk léegi nag waa Pastef li ñu war a def ba bokk ñoom ñoo ko xam loolu moom du ma ci sori mais li leen yoon may nañ ko jël sañ bi leen yoon may nañ ko jël léegi nag ci jamono boobu ñu jàpp ni Pastef ci wàllu parrainage mën na dajale réew mi mën na dekkiwaat mën na dundaat mën na joxaat moral joxaat confiance les militants Boubacar Camara génn. te balaa Boubacar kamara boo xoolee tournée bu Amadou Ba journaliste si fa demoon ñoo def seeni i compte rendu waa ji dafa pan bayre Amadou Ba dalul xel <laughs> dalul xel moo tax ñu bloqué Ousmane léegi nag Boubacar kamara dafa ne nan reporter élection yi loolu duma ci taxaw sax lu yàgg parce que mais Boubacar Boubacar li dal Pape Djibi Fall dal euh, sëñ bi Diouf Abdourahmane mooy parrainage yi daa jafe. dem ba waa bennoo yi sax ñoo Abdou Mbow taxaw di jaay jooy ci kanamu premier ministre naan ko génneel mooy yi ndaxte parrainage yi na mu waroon doxee doxewu ko far ba ngoom taxaw fële di def appel vidéo Macky Sall di ko wan far ba maanaam bu doon mbooloo am na est-ce que Farba dina wane loolu lépp maanaam bu demee moom ba egg ci niveau pour gagner laa confiance de Macky Sall et les militants mu war ko def appel vidéo ñaata parrainage ñoo fi am. Farba daawul def appel bi daan woo télévision woo ñëpp dajale mbooloom kon am na lu xew parrainage yi ça ne bouge pas loolu nag moo jàpp Boubacar Camara pour man dafa xam ne mbir mi doxul te du dem doxul te du dem léegi mu ne nañ reporter élection mais bu reporter élection kan lay profiter mais pouvoir bi lay profiter parce que ci wàllu yoon Ousmane Sonko la mooy salanteeru nguur gi mais Ousmane Sonko. moom ak nguur gi problème mu temps la te justice affaire u temps la boo gisee ci wàllu justice ba léegi mën a gunu jekku Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko temps bi fi des ak pour daan ko fi day jafe maanaam fii ak élection lu fi lu bari boo xoolee nguur gi pe léegi bu ñu poussé élection yi day tax ñu am temps pour gën a mën a exécuter Ousmane Sonko kon naa Pastef bañ day dem élection léegi bu nee day pousse élection yi mooy xale yi ci kaso bi dañuy wéy di des ci kaso bi. bu nee dañuy pousse élection yi mooy ñi ngi jékki-jékkal pour Amadou Ba gën a am temps parce que Amadou Ba boo xoolee aussi problème mu temps la am Macky da ko yéex a jox affaire yi boo xoolee tournée bi booy wax naa nag journaliste yi yi mu doon àndal da ngay sentir ne ça ne va pas bari na étape yu bari da ko sauté bari na yu bari dafa de maillage bi mu waroon def ci territoire dafa des kon tey jii bu nee nan yokk temps bi mais pour may temps Amadou Ba la mu gën a defaru parce que Ousmane Sonko amul problème mu temps la moom bu bokkoon même bu tëddee Chine ñu ne ko candidat nga mun na gagné kon tey jii li ma naan coow lu ca pindum teen ba ñu amul baaraka ak waral lii nag du guléet ñi dem ci élection ñu ne nañ ko pousse Abdoulaye Wade defoon na ko en deux mille dix-neuf nan toj urne yi élection warul am fichier bi baaxul li jëm ci wàllu organisation yi nii nii walla ne la Wade waxoon na ko fi. mais bi ñu demee ba ci biir dafa mel ne protocole de Conakry lu ko arrangé wala moom Abdoulaye Wade mooy ñu pousse élection yi xoolu woon lu arrangé opposition mais li ko arrangé la doon xool parce que élection yoo xam ne bokkoo te amoo candidat kon mu ñàkk am wala gënal en 2012 mais dem nañ fi ba war a tëgg élection yi Olusegun Obasanjo jóge fële nañ nañ pousse élection yi comme li Boubacar di wax ni te boobu. tension électorale moo amoon Seydou Lamine Niass na leen dañuy dem élection élection yi dina leer te xaddu damm te alternance dina am Seydi mujj am raison te nag Boubacar Camara foofu lay tëjee fi mu ñu bëgg a dugal mooy pousse yàgg nañ fee pousse élection locale pousse fi élection législative mais tey jii élection présidentielle kenn mosu ko pousse ci réew mi te buñ ko njëkkee pousse benn yoon rek mën nañ continuer di ko pousse kon bii. rendez-vous bi le vingt cinq février la atum deux mille vingt quatre bëgg bëre mën bañ bëre waaw ak ku mën a bokk ak ku mënul bokk bëgg bëre dem bëre léegi nag kañuy fal sénégalais yi ñoo koy tànnal seen bopp di wax ni Boubacar kamara wala fi nee nan ku mënul boobu lu yàq yow boo mënul rek bàyyil kon di gërëm El Hadji di Diouf <laughs> di gërëm Abdou Top di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp jàmm di jégalu ñëpp ah di gërëm ñëpp di leen sant. di leen wax ni rek mën ngeen ñoo suivre ci solution info TV ak solution info di ñaanal ñëpp jàmm beneen alxamis incha allah ñu dellu si rek fa seenee waxtaanee actualité bi di ñaanal Papito Karaay pap Ibrahima Gueye suñu borom jéggal ko te xaare ko àjjana